Thank you. asalaamaaleykum yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV kon niñ koy defee à chaque fois di béggee ñëpp kulukum ndax ah, li ñuy wax rek nee naa leen yéen yéen yéen yéen su yenee suñu lépp ndax lépp lu ñuy def rek yéen yéen a tax tey nag ah, maam gan goo xamante ni yéen a ma ko doon laaj mu nekk xale nekk koo xamante ni yaakaaru làmb la nekk koo xamante ni am na combat muy Cheikh Tidiane Niang damay am contentement pour waxtaan ak moom ndax suma xarit la euh, wax dëgg yàlla mu nekk ko xam te ne ku am coloré ndax dama ko wax émission ndeysaan mu jógee dëkk ñëw ba fii rien que pour man di ko ci remercier bu baax a baax ndax man maa waroon a dem mais moom moo ñëw ndax loolu mooy wan ni carrément ñun ak ñoom ñoo far dama koy bàyyi euh, mu nuyoo ak yéen ñi nga xam te ne yéen a ko laajoon après ñu dugg ci li nga xamante moom mooy waxtaan bi Cheikh maa ngi leen waaw Fatima maa lay fay euh, comme ni ko waxee waaw di di lay nuyu di nuyu caméraman bi di nuyu monde entier ginnaaw bu ñu jullee ci yonent bi rek sant suñu ñaari waajur di nuyu borom place bi ma nekk fii muy Maama Daba waaw doon nit ku baax ci ñun waaw di nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn waaw di jaale sam benn booy muy Madi di koy jaale magam MS waaw dafa gaañu di koy ñaanal yàlla xaaree ko àjjana ak ñu muy fekk foofu ñëpp waaw di ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi yàlla defal leen jaamu ba ñu génn si ak jaamu ñi nga xam ne tamit ñu ngi hôpital yi mu ñu noo génn waaw maa ngi ñaan yàlla def ba ñu génn tamit waaw di ñaanal ñëpp jaamu waaw di nuyu waa ñoojoor waa ndun waaw waa ndun ba fayaa ko ñëpp maa ngi nuyu bàyyuma kenn daal waaw di nuyu waa parcelle au ba 26 tamit waaw. ba 26. waa waaw. mais si Tidiane ñëw am nga fi de. ah ma nekk Dóor Dóoraa dama nuyu waa parcelle 1 ba 26. ah boo nuyoo waa parcelle 1 ba 26 danga nuyu waale Ndongolo. Eh, waaw maa ngi nuyu Ndongolo. Ah. waaw. <laughs> nuyoo bi am na solo Cheikh Tidiane Niang mu ne koo xam te ni chaque jour dañuy am contentement bu baax a baax pour daral ko euh, mais Cheikh euh, tey kenn du fi nekk naan kan mooy Cheikh Tidiane Niang. ndax mën nañu wax ni àdduna wër nga këpp xam nañ kat mooy Cheikh Tidiane Niang découvrir nañ ko à travers lutte simple tey boo ñu doon booy ñëw si sa parcours rek résumer ko pour gars yi seetaat sur Wassare Lamb ñi nga xam te ni namm nañ la bëgg nañ laa xam. waaw ah, waaw Cheikh Tidiane comme nu ma koy waxee à chaque fois rek booy bu ndaw la waaw tudd Cheikh Tidiane di nekk naa nga fata judo euh, Sirmang yaroo Niodior waaw doon mbër mu ndaw waaw noonu la fa demee waaw. juddoo ñoojoor. waaw. waaw yaroo ñoojoor. Silema mooy moom ñoojoor. mo Silema mooy dëgg sama maam la El Hadj Ma waaw di nuyu famille am yëpp au passage. waaw di nuyu sama tooma bu baax a baax. waaw. séeréer la. waaw séeréer laa kay. 100 pour cent waaw. mais <laughs> Ndongo séeréer la de. Ndongo waaw. Nawala non du séeréer de. ñoo jor am na fa ay mbokk. kan. ndongo la. ah waaw am na fa ay mbokk ndax man mbokkam la ndax mbor laa. ndax entre ñun képp koo xam ne mbor la rek man sama mbokk waaw man tamit mbor laa moom la sama mbokk la. waaw loolu kañ bañu ko. mais euh, wax nga ko sànq euh, nga nekk xale boo xamante ni mën nañoo wax ni suñ la xamee làmb académie moom moo tax gars yi xam la foofu nga génnee mën ngaa ñëwaat ci làmb académie bi na nga fa duggee ak ni nga fa génnee. waaw lamb académie ni ma fa duggee moom macha allah lépp jaam foofu tam parcours <laughs> Fatima laa yaa ngi wax wax nga lu garaaw nag. Ah. lamb académie neexoon na trop macha allah. Ah. passé neen ko ak jaamu. non mais mais xam nga Cheikh nag ah, lan mooy problème xam nga suma xarit nga te. Eh, ay nangam laaj nga lu garaaw xam nga yow suma waaye nga tey moom question yi day day kii ndànk laay def tey comme xam ne ndax yaa ma ko ñaan mais làmb académie am na lu bari lu fa nekkoon moment yoo fa dund mais lànk làmb académie Cheikh Tidiane Niane nan la fa duggee nan la fa génnaatee ngay ree naan ma xam lu nekk li nga xam ne dafa nekkoon ci biir rek lu nekk ay kemtaan yoo xam ne man sam bopp man à part man maa ko xamal sam boobu ba noonu muy jeex looloo tax ma ne la uh-huh. laajte nga lu garaaw te mosumaa toog benn di def benn interview wala di toog téléspectateur di koy wax. Ah. voilà c'est la première fois yow nga laajte ma ko xaw ma sa lu tax nga laajte ma ko. léegi expliqué lamb lamb académie ni nu ma fay duggee sama benn grand c'est Ousmane euh, Thiadiaye la nekk maa ngi koy nuyu au passage maintenant mu ngi Espagne maa ngi koy nuyu au passage moom ma dugal ci lamb académie mais buñ duggee ci lamb académie mu nekk loo xam ne yéeme na trop. mais xam euh, tey li tax mën na làmb académie tey commencé wuñu Cheikh Tidiane ñaanal parce que àdduna xam nañ la te dafa am loo xamante ne ñun dañ doon seetaan. amaana am na lu bari ki mais da nga toll foo xamante nii tey macha allah tey làmb académie tey Cheikh Tidiane ñaar ñu bari dañoo xam ne làmb académie lay jaar te am na lu bari loo fa dund ah ak mbër yi mais nag euh, am na loo xamante ne comme que nee nga mosoo ko wax te fenn tey nag Fatima moom moo la koy kii làmb académie la. waaw fu ma juumal xaw ma suñ première parrain la woon première compétition bi xaw ma deuxième bi si ñaar yooyu mënuñ koo weesu dañ doon bakku quoi après ñu na après ñu wax gars yi ne pour ñu jënd ñu jëndal ñu ay dàll quoi ay plastique ñu jëndal ñu ay dàll mais façon dàll bu ma am ñun sedd yëpp yëpp façon dàll boobu man kese maa ko am mhm. waaw. no loolu demal youtube nga. <laughs> xaw ma lu tax. xam nga nit ki lu mu war a am rek. Mhm. da koy am alaa kulli waaw. mais façon dàll bu ma am. man kese maa ko amoon te ay plastique la nekkoon. te ay plastique la nekkoon mais niróo maa gars yi nag. damaa xam du musique foofu doo yóbbu si ay but benn butéel lañ ñu may benn butéel. lamb académie benn butéel nga xam ne foofu musique nekku fa. Mhm. waaw mais plastique <laughs> jaaxal. tey eh, <laughs> dañ ma ko jox dem jënd ko ci bitig ba comme ñun jëndee bi comme ñun jëndee ay dàll yi. samay samay samay morom yi. mais yi ma am man kese man maa ko am. li ñu joxoon loxo yow kese. non non dañoo seddale rek xam ne nit ki li nga war a am rek alaakulaa ndax ñoom sax bàyyiwuñ si contrôle. waaye man man bàyyi naa si control ah, ndax bu ma paree suivre naa ñoom ñëpp seen dàll yi mais dàll bi ma yor man kese maa ko yor. ma xam ma xam ne làmbu académie dinaa ko gagné. xam ne yaa ko waaw xam ne man maa ko moom lu metti métti dama koy jël bari ci Seydina Mouhamed. ndax plastique boobu rek. billaahi walaay talaay. ndax plastique boobu rek. mais boobu daa am ku la ko yónnee. wala Cheikh dafa am sa benn mara boo xamante ni dafa nekkoon foofu ñëw am ku ko jox ñu mais mais Cheikh nag gis nga gars yi instant bi dañ la laaj ndax su ma koo daggee fii rek dañ ne ma Fatima da ñoo yab mais dàll boobu noonu nan la ñëwee dafa am sa benn pa mara. bu koy indi par exprès wala boo xam te nan làmb boobu ñëw ci dàll bi loolu. yow Fadima ba léegi déggoo ma de dàll bi bitig ba leen bitig ba leen jëndi ay dàll am pagaay ñu ñëw jox ma dàll mais dàll yuñ ma jox barki Seydina Muhammad man kese maa am façon dàll yooyu te ñu doon def làmb académique concentré wuñ si. mais yow lu man laa ko. man moo ma jaaxal moo ma jaaxal wasak day bette rek. Mhm. après barki yàlla. ma xool ñoom ñëpp ma xool seen dàll yi ma wax ne lamb académie dinaa ko jël barki Seydina Mouhamed. léegi ba nga ko <laughs> lépp faalaw kay. après léegi nag euh, prime bi waaw prime bi commencé ma génn si. par tirage la woon. waaw par la woon ndax dañ doon éliminé par deux personnes waaw waaw. léegi après yow sa premier prime yàkkan la woon. sama premier prime bëri naa xaw ma presque xaw ma quatre combats yëpp dama leen daan. waaw te benn bu nekk bokk ak ni ngay daane. non non ah man yow xam nga sama bëre. Uh-huh. nu ma neexee laay daane nu ma neexee. Mm. waaw. yàgg ñan la woon mën mën nga koo fàttali ko waat fàtte nga leen. non fàttewuma leen bari leen trop. ñoom Daw Dangom ñoom Ousmane Sow ñoom ñoom Daouda ñoom beneen Daouda am na beneen da bu nekk fas mbaaw ñoom Momadou Dieye ñoom Souley Sarr. bëri woon neen daal. presque ñoom Mamadou ñoom kii Mamadou Seck waaw fu ma juumul daal mbatoon neen vingt et un daal fu ma juumul. vingt et un waaw. mais Cheikh yàlla def ne mat nañ vingt vingt et un personnes mais est-ce amoo loo fa dund loo loo xamante ni ci côté mystique parce que demoon na benn instant boo xamante ni kër gi dafa jaxasoo woon de. non non benn mystique dugg fa. ndax gars yi dañ doon surveiller waaw. am loo xam ne dañ ko dañ da am da am loo xam ne moo ñun suñ bopp luñ dugaloon suñ nopp yi ndax affaire musique nekkul loo xam ne mooy première waaw ñun ñu ngi woon si genre formation boo xam ne macha allah waaw gars yi jàpp ñu foofu waaw dañuy teg si yoon waaw di jàpp di julli waaw di def lépp daal waaw heure entraînement fu jotee ñu dem entraîné di foo ka fu jotee tam dañ koy def waaw métti woon na trop nag waaw. daaw wuyu téléphone yooyu yëpp daaw def. non mais des fois ñu may leen ngeen wax téléphone quoi nga jot mbokk yi waaw di nuyu Birane bu baax a baax waaw. nga dugg làmb académie jël li nga xamante ni mooy dafa fa mais lan lañ leen proposé woon ci làmb académie bi. waaw ah, lu ñu proposé woon ci làmb académie bi moom gars yi mën naa wax ne def neen ko quoi. matal nañ waaw matal nañ lépp. leen tegaloon. man fu ma juumal amoon naa deux millions euh, Michael Fora mayoon na ma nag maa ngi koy nuyu au bu baax di koy woo sama combat bi nekk Michael Fora maa lay woo ci combat bi waaw euh, nu mu tuddati paa bi nekk euh, Fass Mbao moo du yaakaar naa moo du xule la tudd waaw kooku may ñëw ñu terrain waaw d'après yow Lamb Académie yow ban lan nga ci tiire ban expérience waaw ban expérience ndax fa laa jóge Euh, ñi nga xam ne xamut xamuñ woon ma fa leen ma xamee waaw voilà fële daal wax dëgg ne yàlla. voilà am na lu ma fa jëlee lu bëri sax. Mm. waaw ndax bu ma fa jógee laa bëri sama ay fa laa dugg fa laa ñëw dugg arène waaw. Euh, Cheikh maa la doon tooñ wax nga ko parce que ñu bari tamit ba nga jógee làmb Académie da nga gis bu baax surtout ci lutte simple mu demoon au temps yoo xamante ni da nga doon compétir di gagné di gañe di gagné. demaan ba benn instant Cheikh Tidiane Niang pour mu jël sax benn prime c'est tout un problème ñu gisaat ren comme daaw daaw nga rectifié lan moo waraloon loolu ñu gis ni danga nga wàccoon mais da nga yéegaat loolu lan moo ko waraloon. waaw loolu lépp ci àdduna la bokk rek ndax àdduna tey nekkul ne chaque jour day neex tey day neex suba mu nakari waaw fu neexee nag nga absente ne dafa neex fu nakaree tamit nga absente ne dafa nakari ndax képp mbër bu fi nekk naan dafa dafa neex la année yëpp. mu mu ngi lay mu ngi wax lu ko neex waaw waaw. mais année boobu yow lan moo xewoon lu xewoon ndax maa ngi la si doon tooñ. ndax ñu bari ñu ngi doon wax Cheikh Tidiane Niang dafa jëloon bu moomul Cheikh Tidiane Niang ñi mu doon àndal ànd toog ñoom ñu gisaat ba après changement am lan moo waraloon loolu. lool du problème poids. du problème poids man mosuma am problème poids. Mhm, man ceeb bu sew laa. waaw ah, lu waral loolu. ah ñu ma doon àndal ci làmb. ñu ma doon andal ci ci làmb ñëpp dañoo demoon dem dem dañoo dem Espagne te xam nga loolu dafa metti inchallah loolu dafa metti quoi looloo ma daloon am sam benn mag boo xam ne dafa dem Maroc tamit ba léegi jusqu'à présent mënu ma laa wax ne ci lii la nekk tamit waaw ndax kooku bu muy dem sa wax dëgg ne yàlla man farima lu ma yëg sama yaram war naa wax ne barki yàlla neexuma woon bu may tàggu barki Seydina Mouhamed neexuma woon mais ñemewu ma koo wax ne dugg na fii gën na fii waaw ndax nit ki jël décision am tamit muy loolu quoi waaw nekk koo xam ne am na fu ma féete woon trop trop te xam naa ko bu baax a baax waaw moom xam na man xam naa waaw. ba léegi xaw ma si lu mu nekk sax te yaakaar naa ne tamit daa faatu quoi fu ma juumul waaw yaakaar naa ne daa faatu ndax defal nañ ko sarax tamit. ba léegi amuñu ci moom benn information. non di koy ñaanal bu baax. yàlla xaaree ko aljana ndax bu doon mu ngi foofu wax dëgg ne yàlla ñun di dinañ si xam dara ndax échange yi moom ay dox quoi. képp fu nit nekk rek nit ñi dinañ xam ne yànga fa. waaw. koy ñaanal da ngeen toog mois wala toog neen lu mat at kañ di koy léjante kañ dégguñ ko defuñ ko dara. Mm-hmm. waaw daa demoon combat daa demoon combat pour génn dem dugg dem fee dem Espagne. après ñoom bu demee ñëwatuñ quoi. waaw am na ñeneen ñoo xam ne tamit ñu ngi ñoojoor loolu moo leen dal tamit maa leen di ñaanal yàlla xaare leen arjana bu baax waaw waaw ndax metti na trop waaw doon dund loo xamante ni yaa ko jàpp sa tamit doo nekk bokk na si bokk na si Fatima bokk na si quoi ak ndogalu yàlla rek waaw Cheikh euh, nga ñëwaat wax dëgg yàlla maa ngi la ci doon tooñ mais après da nga ñëwaat Cheikh Tidiane Niang milaat beneen Cheikh Tidiane Niang ñu gis la ngay compétir di gagné lu compétition yi yaa ngeen ñoo ci yéen ci doon tase ak compétition yi ni mu demee woon amoon nga ci xaalis de. waaw sant yàlla sant yàlla waa loolu la yàlla dogal ah compétition bi comme mbër yi rek comme mbër yi ñëpp nu may bëree ak mbër yëpp ndax ñu mbër yëpp ñoo xamante neen waaw mënuma leen nag waaw mënuma fi benn mbër yàlla day def mag war a yàlla day def tey ma war a lekk rek lekk. lu ëpp maanaam. comme mbër boo xamante ni par exemple ndax gis nañ li nga gagné daaw macha allah di ñaan yàlla mu yokk wax dëgg yàlla par rapport ak yeneen yi ndax gis nañ ni final ba sax yaa ko yaa finalu woon loolu nan la demee woon. ah lamb 10 millions. lamb 10 millions waaw maa franc ñoo finalu ah, woon. waaw mais nu mu yi ah. lépp jaamu rek comme comme lamb comme lamb cinq cent mille rek la demee woon. yaa ngi ñan fa nekkoon. champion yëpp a fa nekkoon champion yi ñëpp champion yi nekk ci lutte simple bi ñëpp a fa nekkoon kenn oh. manqué hmm. waaw ñoom général. ñoom général tout. yaa ngi général bëri ngeen. maa général bëriwuñu ci combat boobu mais ah. mos neen bëri quoi. waaw waaw waaw mais mais euh, kan nga ci bëreel ci combat bu di ñu ma bëreel foofu bëri na trop. Serigne Ndiaye. Serigne Ndiaye ah. moom mu ngi yoon yoonu kii la jaar yoonu Franc la jaar. ah Yoro Fra. waaw ok yow da ngaa aw yoon tase quoi voilà. ok léegi yow tey nekk euh, écurie yow dóor dóoraat nga nekk. waaw nekk beneen écurie bi. Mhm. ah léegi loolu noonu yéen ñaar euh, benn kii amul seen diggante ngeen ñëw kii ko noonu. non non ah loolu amul seen diggante làmb rek. waaw fu jeexee rek jeex na waaw. Uh-huh. Franc maag moom fanaa ba sonn. Uh-huh. waaw. Franc maag moom fanaa ba sonn uh-huh. waaw. Franc da doon sangu samay butéel may sangu ay butéelam waaw loolu làmb la rek lu muy am man mënu si dara te Franc lu may am man moom mënu si dara waaw loolu yëpp muy loolu ay mbokk la ñu daal amee combat man dama koy ña fu amee combat koy ñaanal fu amee fu amee combat tamit daf may ñaanal waaw maa ngi koy nuyu au passage. maa moom ak Omar ñoo bokkoon nekk Omar Diouane waaw boobu ñu woon regroupement di waaj chef di waaj CEDEAO pour dem Niger. waaw mais à la fin mujjul woon qualifié quoi waaw. Euh, Cheikh beneen bi mooy ñu bari dañuy laajte que ni ni nga nekk séeréer ndax dañuy gis ni séeréer yëpp ah sama mbokk séeréer yi ma leen di nuyu au passage ndax man maay seen kii maay seen buur ñu gis ni séeréer yëpp ñoom dañuy am seeni i écurie mais parfois sax da ngay dégg ñu ne Cheikh Tidiane Niang écurie Dóor Dóoraat ñu ne pourquoi mu dem écurie Dóor Dóoraat lan moo tax yow Cheikh Tidiane Niang écurie séeréer yaa ngi fi mais li tax yow nga choisir Dóor Dóoraat. waaw lu tax waa Dóodoraat man awma seen fay ndax ay nit ñu baax ñoo fa nekk car macha allah mun naa wax ne nu ma mel ci làmb bëredoor bi ñoom ñoo tax ndax bu ma ñëwee sama premier combat boobu nekkaguma Dóodoraat ñu jàppale ma teg ma ci yoon ma dem làmb sama samay mbokk yóbbu ma làmb ba waa Dóodoraat Dóodoraat yóbbuñ ma de samay mbokk ñoo ma yóbbu ñoom tamit ñu topp seen ginnaaw. boobu mbokk. boobu samay mbokk ñu woon ñoo joor ñoo ma yóbbu ba stade sama premier combat. waaw mooy jour Balla Gaye ama jour Balla Ama Sène maa waaw waa Doodoraat nekk sama ginnaaw ma ñëw daan sama deuxième komba ma ñëwaat waxuñ ma dara waxuñ ma ne duggusil si écrit bi waxuñ ma ne lii wala laa te gisuma si seen kanam loo xam ne mën naa tax ñii maa ngi ñëw te fu ma paree man damay demaat toppati toppi mbapat bi te ñoom ñuy am combat sama deuxième combat ma defaat noonu sama troisième combat nag ma toog ak samay waa mbokk wax ak ñoom naan ma waaw loolu rafet la waaw voilà loolu moo ma dugal ci lambu académique loolu moo ma dugal ci door dooraat waaw. Euh, mais parfois gars yi duñ la dee xam nga gars yi moom duñ bàyyi weer ci benn fan naan la pourquoi doo dem ci écrit diw diw ak diw. loolu moom kenn mosuma ko wax naan doo dem ci écrit diw ak diw. waaw ndax man écrit bi ma nekk car macha allah doy nañ ma ay ñoom Ramadan ñëpp dañ ma doon fayal saal waaw garga fu ma amee combat muy loolu ñoom booy bool fu ma amee combat ñëpp dañ siy jàpp ñoom Moussa Balla ñoom Boursine su ma limee rek juum barki yàlla ñoom ñëpp farima ñooñu man awma seen fay ay booy bool ay Moussa Balla guddi sa dama la den woo dama leen woo téléphone guddi ay 23 heures barki ñu ñu wàcc ñi may jàppale si entraînement yi barki man tamit fu ñu amee combat noonu lay sonné waaw. lutte avec nga def ci 5 combats. waaw ma def ci 5 combats 5 victoires. gars yu bari na Cheikh Tidiane Niang dafa retard ci làmb lutte avec frappe ndax retard bi bu amul woon fii mu toll nii dépassé na ko bu yàgg yow dafa mel ne ci lutte simple bi nga gën a concentré wu que lutte euh, avec frappe lu waral loolu. non gënu maa concentré wu de gars yi ñooy daw samay avance gars yi ñooy daw bëgguñ bëre ak man mais comme Ndongo jël na sama. aywa dinañ ñëw ci comme ndongoloo jël non non du loolu sax dama koy sant di koy gërëm quoi ndax adversaire yi ñu doon daw ba léegi ñu jël ma am na ñoo xam ne dinañ ma bugg a dab nag te duñ ma jot. mais ndongoloo moom moo la jëlal boppam. xam naa loolu ndongoloo moom waaw léegi nañ ñëw ci Seck combat yi ba pare euh, mais Cheikh euh, Seck combat yi <laughs> ñaan nga daan ci seen combat yi. seen combat yi daan naa nu mu tudd Souley Sarr daan Waly Notaire daan Lay Sopi daan capitaine daan ak kan sax fàtte de waaw. Ah. mais moo tax euh, ma ne avec frappe da nga da kii nu mu tudd da nga da nga tardé mais Cheikh Tidiane Niang est-ce que di nga ñëw stade ndax damay gis ni gars yi buy ñëw stade di yëngal Cheikh Niang dafa mel ni mi ngi ci mi ngi compétir lutte simple de. non non damay ñëw. des damay ñëw waaw. combat Mama Lamine ak kii nu mu tuddati bu mujj bi waa ji dëkk euh, Kër Massar. Euh, Jokal Jokal maa ngi woon stade. pour lan pour dëkk leen. Ah, fekk tamit sam benn mbokk di non dama leen doon dëkk. barki yàlla. waaye ma gars yi xam ne naka de gars yi dofuñu de. yow ma yaakaar lutte ak lutte avec frappe benn la. non man du nekkuma gan ci lutte avec frappe nekkuma si gan. nekku ma si gan parce euh, yow da xaw a ñàng parce que Cheikh yow da ngay bëreel nit Cheikh Tidiane ñaa kàggu mooy bëreel mooy bëreel nit da ngay jékki-jékki Cheikh bu daanee ñëpp daanu am na combat boo xam te ne moom noonu daa daanu ñëpp daanu stade <laughs> Cheikh ba ban combat la woon. boobu combat boobu maa capitaine la woon. Ah. capitaine waaw mais loolu mystique la woon dañ la ko dañ la ko digaloon wala. non non loolu xawma sax man mënu maa wax foofu dara. non non li nga defoon ci biti ak non si kii dafa garaaw de loolu dañ la ko digaloon. non non ah, xëy na daa tombe rek waaw daa tombé rek mais loolu du dara làmba la rek. mais yow dañu la waxoon da ngay génn ci biti. damay génn maanaam. lan <laughs> yow dañu waxoon da ngay génn ci def li nga def pare soo ko dugaat. non Fadima daal làmb daal làmba la quoi. waaw bu jeexee rek jeex naa. non Cheikh xam nga lan mooy làmb detal la rek soriwul. detal la ok après loolu euh, dama toj gàllaaj comme génn dugaat bi. ah toj gàllaaj ah sans dépend rek. sans dépasse si boromam rek. Mhm. waaw. lapp taake benn moom. moom ay bu gis nga buy bëre. bu seeree làpp taake bi rek jàpp xamal ni kii amul kii non non nongoloo <laughs> préparé làpp taake bi rek. non mu ngi ndongo mu waaj bu baax. làpp taake bi est-ce que ñëw ci combat bi la du ma bàyyi dara. Mm. <laughs> combat bi dama kaa bëgg barki Seydina Mohamed combat bi dama kaa soxla. Mm. wóor na yàlla samay fans club gëñ ma ko soxla waxatuma membre fans club waxatuma la cent pour cent bi <laughs> guys li instant yi loolu la ñuy waxtaanee hmm. def mobilisé bul tàkk barki yàlla ñëw stade ñu defal gan gi lañ koy defaral ñebe suñ ñebe yaa ma gën a xam teg suñu caayin di jàpp yi seen nag pour yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV tey ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane Niang dañ doon résumé rek parce que yéen ñëpp xam ngeen ko mais nag da baax parfois